Mounass la ma ñëpp xamee sama tur dëggantaan Maimouna la bon sama xarit yi di ma wooyee Lovely léegi ma ne pourquoi pas du ma jël ñaar yi boole ko quoi moo indi Lovely Mounass. tey ñu bëggoon xam say jaar-jaar ci musique maanaam fan nga commencé et tout. musique moom fii laa ko commencé biir Sénégal. fii laa ko commencé ngir euh, daawoon naa nekk Douta Seck doon def ay voix affaire yooyu noonu quoi fii laa ko commencé. ndax metti woon na au début. non pas du tout méttiwul sax xam nga boo gisee euh, boo gisee ñu la tour. ñoo xam ne ñëpp musique la ñuy def bon day xaw a yomb quoi du xaw a métti ci benn côté. ñu bëggoon xam ban âge nga commencé musique bi. Euh, ça fait trois ans léegi. Ya, ça fait trois ans léegi yàggul noonu yàgg na yàggul waaw. tu fais quel genre de musique. man world music lay def. mooy maanaam. musique lépp lu ma sentir mun na nekk indo mun na nekk mbalax mun na nekk R&B bi ça dépend rek lu ma feel rek yeah. donc fu ñu la yóbbu rek nga jël. Yeah. waaw. <laughs> d'accord tey la li ñu bëggoon xam yow ndax am nga ay sons yi nga jot a def wala ay album. si si jot naa jéem quatre son benn bi euh, love story la ñu xamee ko Mac Boni Bless ñoo ko def euh, xaw na yàgg mooy sama first son ma jóge ci loolu noonu def euh, son bu ñu naan téye sa jëkkër. gaay xamé ko badax euh ma jox la ñu ñew ci badax bob ku ci am sa jëkkër nako té ku ci am sa jëkkër nako té ku ci am sa jëkkër nako té way sino nako badax lo <laughs> si wax si lolu waxin la rek euh en tant qu'artiste euh don junju gaay pour ñu tié sen jëkkër parce que jamono jamono bii nii euh, xale yuy nangu jëkkër jàmbur c'est trop quoi ma ne pourquoi pas en tant que artiste du ma jël loolu mbubboo ko mel ni man maa koy dund quoi conseiller leen ci pour ñu téye seen njëkka aussi nga wax képp ku si war a am jabar na sant Samb. parce que Samb laa sant. waaw ku nekk booy ràcc da ngay ràcc jëmale sa kanam. <laughs> loolu foo ko teg <laughs> ah. mooy loolu te yeneen sant nekk fi. Ah, mais man Samb laa sant. Ah collaborer ak est-ce que yaa ngi collaborer ak un artiste euh, bien sûr bien sûr maa ngi collaborer un artiste a comme ñoo Chirif ak Jam Sabren instant yi ñoom ñoo ma yor fa laa nekk seen label ñoom ci la yaay booy ñoom mojo Moi, loolu quoi yeah bëri na ñu bëggoon xam ndax yow gambi nga jóge ñëw sénégal wala sénégambien ou le nan la fa demee noonu ya mun naa wax sénégambien parce que gambi laa juddoo en tant que gambienne sama parents yi sénégalais léegi ñaari boo bolé Sénégal bien la lay jox ya sama carrière musicale fi la ko commencé buma ma Sénégal buma ma nekkoon nak nag def ma woon musique mais buma ma fi fii commencé def musique mané pourquoi pas motam tax mu boole affaire yi mu nekk Sénégal bien ndax wa Gambie ñu ngi déglu say son. mais bien sûr ñu may félicité demb rek ak sama clip bu ma lancé non ci YouTube bi gaay yi ngi may wo fune ñu ngi may félicité moy loolu quoi. ndax commencé nga def ay concert que ça soit Gambie wala Sénégal. Euh, Gambie non commencé gu ma def concert Gambie mais fii maa ngi joué ci ay concert ko lu mel ni Thiès euh, Kaolack ak biir Sénégal Ndiaye fii tamit mooy loolu noonu quoi yow maa ngi joué. ñu gis ci sa clip nii da nga am ay style yu particulier ñu bëggoon xam yow style yi fan lay jógee inspiration que ça soit coiffure que ça soit habits vêtements chaussures loolu yëpp fan lay jógee. loolu ko xam Love Limonaise xam nga mannequin la yeah mannequin la en tant que mannequin moom solo du la du la du la kii quoi yeah boo nekkee mannequin moom da ngay mën solo quoi yeah still lovely mu nice moom loolu moom ci man la nekk. kon mannequin bi da koy def en même temps ak sa carrière ak sa carrière musicale. yeah damay def mannequin en même temps fu ñu ma woo moom damay dem. yeah ngay def ay défilé de mode et tout ku la woo nga ñëw. bien sûr bien sûr ku ma woo tey ji ku woo Lovely Nice rek pour ma ñëw défileel ko incha allah dinaa ñëw dimanche bi rek laa si jógee Grand Théâtre euh, New Désastre maa ngi fa woon dimanche bi waaw. ñu bëggoon xam sa dernier woy bi nga génne sa dernier son. waaw sama dernier son mi ngi YouTube démb lañ ko lancé euh, à 17h euh, mu tudd Cuucàpp Cuucàpp képp ku bu nga xam luy Cuucàpp nga daw dem YouTube dem seetaane ko ko quoi.

<laughs> waaw gis nga moo tax ma ne cu càpp moom mooy loolu noonu yaa donc euh, ngay wax képp ku ko bëgg seetaan na dem YouTube. ku ko bëgg a seetaan na dem YouTube démb lañ ko lancé ak 17h disponible na mi ngi YouTube yaa cu càppalaa ngi foofu noonu. bu bëggoon xam ndax Lovely Mounass elle est célibataire wala mariée. non pas encore je suis pas mais je suis célibataire. mais am bëri na gars yu lay topp. <laughs> waaw loolu moom du ñàkk moom ci jigéen. waaw foog nga am ñu lay wër ñu lay topp loolu moom du ñàkk quoi yaa maa ngi gis ni réseaux sociaux yi macha allah nit ñi ñu ngi lay suivre di la follow di partager say story loolu lan moo koy war. waaw loolu moom mun naa wax tamit euh, ça dépend rek xam naa dañ maa bëgg sama fans yi franchement aw ma seen fay. aw ma seen fay ngir maa ngi gis seen publication yi sama fans yi et tout sama mbokk yi xam nga ñu ngi siy jàpp quoi. yaa maa ngi leen di remercier et tout di leen wax content naa trop franchement. kontaan naa trop te na gars yi daw dem abonné sama YouTube ngir clip bi fa la nekk quoi. na ngeen daw abonné si chaîne YouTube am lan mooy sa chaîne YouTube. Lovely Mounice ku tapé Lovely Mounice rek di nga dugg incha allah te am na yu garaaw yuy ñëw lépp képp ku bëgg a xam Lovely Mounice si lu mu nekk rek dawal dem YouTube Lovely Mounice. kon daw leen gaaw. incha allah incha allah ñu bëggoon xam en tant que jeune artiste c'est vraiment difficile ci milieu bi maanaam concurrence yi ak yeneen artistes yi nan ngay dundee loolu. waaw di sant yàlla rek di sant yàlla xam nga musique mooy loo xam ne dafa yaatu quoi ku nekk sa chance. yaa jarul daw bay daanu quoi. yaa ku nekk sa chance fu mu nekk rek mooy lool quoi di nga ko lekk. ndax jot nga liggéey ak ay artistes gambiens comme sénégalais. no pas encore mais maa ngi liggéey ci loolu noonu. yaa maa ngi liggéey ci loolu noonu muy Gambie muy Sénégal waaw ñu ngi ci xool daal incha allah. ñu bëggoon xam tey en tant qu'artiste ndax. Euh, yaa a ay euh, am ay concert wala di def ay événement affaire si si moi ngi dem concert invité nañ ma concert vous bëri jot vous YouTube mom, boo vous xam Love Limonade si lu tapez Love Limonade di nga mes affaires, affaire samay concert et tout mu ngi YouTube quoi bientôt inshallah dina commencer jouer live ay janvier février ñu quoi euh, en tant qu'artiste aussi nous gis ni programme tout le temps déchargé. nit ñi dañ leen ci région yi ngeen dem euh, vie personnelle. waaw mais engagé pour artiste quoi yaay dañuy moñ rek. <laughs> ñu en dehors de ta vie euh, professionnelle lan ngay def. bon damay des fois xarmat comme di jaay ay yëre jigéen comme yi may sol nii euh, des fois ma nekk ci man kena bi fuñ ma woowee tamit ma dem défilé nekk ci musique bi en même temps. noo gisee business bi tey ndax mi ngi avancé. waaw tane na rek tane la rek waaw ñu ci kawam ñu ngi ci sant yàlla rek. dafa mel ni boo nekkee artiste la affaire yi di gën a ñëw. waaw waaw waaw. <laughs> waaw ça rek ça dépend rek. yaa ngi lekk sa xaalis kon. Euh, waaw maa ngi sant yàlla. Mm-hmm. bëggoon wax tey looy wax say fans ak képp ku lay seetaan. bon di leen remercier di leen wax euh, gis naa seen seen message yi si YouTube bi gis naa seen publication si statut yi euh, di leen remercier di leen wax franchement content naa trop ngir awma seen fay te duma leen décevoir ci côté boobu noonu incha allah ci kan ci kaw ci kanam rek. ñu bëggoon xam tamit lan moo la gën a marqué si sa carrière musicale comme début bi ndax metti woon na lu la gën a marqué positivement et négativement. waaw lu ma gën a marqué mooy euh, bon <laughs> début bi métti woon na waaw début bi métti woon na trop mais instant yi moom cool quoi ngir am na. doon xam lan moo métti euh, début bi lan moo la marqué vraiment. Euh, bon xam nga lépp looy loo lépp looy commencé tamit day xaw a métti benn côté parce que doo xam yoon bi doo xam doo xam yoon bi carrément foo ngay faxastalu di jóg affaire yooyu noonu quoi ba balaa ngay comprendre affaire nu fay demee. say parents est-ce que nangu woon si si si si mun naa sama famille ñom tam ci musique bi lañ bokk amna ñu ci def musique et tout moy lool quoi amuñ problème ci côté boobu. lan mo la marqué positivement. positivement moy instant yi euh, ni si ñëpp jàppee euh, di ma encouragé loolu kontaan naa ci trop franchement. donc euh, ñu bay la nga tagato wala do ñu may ben sax doo ñu may ben son. <laughs> waaw tey moom damay ci soose quoi. kon yo soose nga. waaw fan nga. Euh, John Kassil. John Kassil fan la nekk ci Sénégal. Casamance. <laughs> Soxna Mariama woo oh, Mariama. dindiŋo balanta bana faye sona mariyama a kabitala kole to koma koma baleo dala sona mariyama a dindin dindiŋo bambuwo sona mariyama cilo bina fala donc ñu bàyyi la nga tàggatoo ñi nga war a remercier ak képp ko bëgg waxal fii ci Allo Dakar TV ñu ngi lay déglu Euh, bon je remercie remercier de remercier sama famille de remercier euh, sama fansi sa sama sa yi sama ménageur moom tamit jàpp na ci bu baax euh, ak waaye Allo Dakar ni ma woo ci fini, fii nii maa ngi leen remercier tamit wax love li mu ngi quoi inshallah. merci beaucoup. yaa ngi surprise gars yi. surprise saf Yeah. you know I love you you know I feel you I alone. Yeah, that is for Allo Decker. it's me. Lovely.